juróomi waxtu yu uh, toftal ay simili jot na fii ci uh, Thiès TV ñu dikkal leen ci li gën a fës ci uh, xibaar yi wàllug wér-gu-yaram ci nga xam ni ci la ñuy daal di tàmbali suñu waxtaan ne ñu koy faral di defee rek euh, saa su nekk euh, ki nga xam ni euh, mooy yor wàllub ministère bi ëmb wàllub santé fii ci Sénégal ni ñu koy defee bëccëg bu jot daal ñuy indil li nga xam ni moo gën a fas ci li tukkee ci jàngoro ji di coronavirus des na ci dikk ci kanam tuuti bu ñu ci jógee des na jubali dem seeti ki nga xam ni moo di Habib Niang àndoon ak kuréelam googe di ànd sukkali Sénégal loo xam ni defoon nañ ko muy campagne de civilisation jëmale ci it wàllub jàngoro ji ci kanam tuuti des na ko gën a yaatal des na demit foofee ca commune bu Ngunjaan ki nga xam ni moo di mairie ba am koppar gu takk goo xam ne yëkkati na ko ci wàllub xaalis ak ci wàllub garab daal di koy euh, jàppale ñi nga xam ne ñoo yor wàllu poste de santé yi loolee tamit euh, des na ci ñëw faram fàcce ku mu gën a tee yaatu Euh, ki nga xam ni moo di euh, wàccaayu màggalu Tuubaa gi nga xam ni ndogal la tukkee na ca démb euh, ñi nga xam ni ñoo yor wàllub communauté départementale bu ak développement CDD ba am na kàddu yoo xam ne tukkee nañu ko ci ndigal li nga xam ni moo bàyyeekoo ci xalif général des na ci dikk ci kanam tuuti moo gën a tey yaatu ci kanam tuuti faram-fàcce waxee ci euh, tàmbali gi tey euh, point du jour maanaam xibaar yi nga xam ni ñoo bàyyeekoo ci ministère bi yoor wàllu wér-gu-yaram euh, dikk na daal di nii loo xam ni ci altine ji wax nañu ni junni ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay nit la ñu jël daal di leen di saytu seen wàllu wér-gu-yaram waaye juróom ñaar fukk ak juróom ya ñoo dellu siwaat daal di positif daal di amee doomi jàngoro ja am na ci nag euh, fanweer ak ñett ca ñoom ñoo xam ni contact la euh, am na ci euh, fanweer ak juróom-ñett yoo xam ni communautaire la am na ci it juróom fukk ak benn yoo xam ni ay nit yoo xam ni dañ leen a dalaloon ci l'hôpital yi waaye gis nañ ak saafara ci seen yaram waaye am na ci juróom fukk ak juróom yoo xam ni seen cas nekk na cas yoo xam yu xaw a dayo la ña leen téye ni ci it ñett ñoo xam fekk si nañu ñi nga ñoo ci ñàpp ñàkkoon seen bakkan boobu ba tey ñu déglu communiqué bi daal di dellu si waat ci ministère la santé et de l'action sociale tey bësu altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août biñ nekk ministère la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci junni ak ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi ñu jot a def juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci fanweer ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ki ko yore te moo leen wàll fanweer ak juróom-ñett ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag nii lañ tëddee ci gox yi wala ci quartier yi Ziguinchor am na ci juróom benn Mermoz am na ci ñeent Kédougou am ci ñett Dakar Plateau am ci ñaar Médina am ci ñaar Parcelles Assainies am ci ñaar Rufisque am ci ñaar Bignona benn la ci am Bounkiling benn Cambérène benn Cissé Foire am benn Cité faja am na benn Cité cœur Damel Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, HLM Grand Yoff Ben, Ben, Ben, Mariste Amna, Ben, Nyaritali, Ben, Tali Ben, Richard Toll Ben, Sikav Amitié Ben, Cité Supreme Extension Ben et zone de captage Amna. Ben. juróom fukk ak benn si malade yi ñu entrée woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak juróom ñu nga ci réanimation ñett malade ñàkk nañ seen bakkan bésu démb dibéer fukki fan ak juróom benn ci weeru bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci cas njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni yu teg ñaar ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñaar mi nga ko loolu mooy euh, communiqué bi nga xam ni moo tukkee tey ci altine ji euh, foofee ci ministère de la santé di ñaanal ñi nga xam ni rek ñoo loru ci euh, jàngoro ji yàlla yërëm leen te ñi nga xam ni it ñoo ca jëlee maanaam ñoo ca feebar suñu borom. féexal leen euh, ba nu mën a delluwaat ci seen njaboot noonu la ñuy daal di toxoo rek dem seeti ki nga xam ni ba tey ci wàllu mbas mi nga xam ni moo di Habib Niang defoon na point de presse bu am solo ak mouvement ànd sukkali Sénégal euh, ngir xamle ci bu wér a wér li nga xam ne sumb nañ ko jëmee ci askan wi mu ànd ci ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci mouvement boobee ngir gën a xamale nit ñi ak jàngoro ji ngir kenn ku nekk mën a moytu xam fooy teg sa tànk ba mën a fegu ñu dem seeti Habib def bi ce qu'on appelle une campagne de sensibilisation parce que fàtte en français c'est-à-dire qu'actuellement, actuellement comme ren nawetaan amul yëpp amoul comme actuellement les vacances sont là on va maintenant prendre les étudiants du mouvement il y a des jeunes du mouvement pour la, pour def ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation campagne de sensibilisation mooy de nous faisons dans chaque quartier Par dans la exemple dans la zone nord dans la zone nord 19 quartiers là. quartier bu si nous pour fa le lu mot jeunes saa yuy xëyee c'est des volontaires nak. du mouvement Sox Sénégal dañuy sol seen ay casquettes seen ay t-shirt yu xam ne pour lutter contre corona moo nekk nii yi ngeen seen ni moom nañu defar sol ay casquettes yore seen jet dugg di sensibiliser la population contre danger bu xam ne maanaam ni ngi koy négliger ma xam ne mu si biir kër yi dañu créer ay comité comité bi xamné limay faral def wax ni que incha allah dina démarrer à partir de lundi nañu démarrer dans les différents quartiers de Thiès chaque semaine day am ben bureau bo xamné fi mo fi nek alerte jeunes yi yëpp def ci quartier anomalie yi gis yëpp dañ koy signer wax ñu ko ñun on attire l'attention de l'autorité limay faral def toujours l'autorité ne pas tout faire il faut au moins les acteurs de développement ñi nga xamné ne jox seen bop ñom c'est des acteurs politiques indi seen loxo yàgg naa ko bokkul ci ki bi sax moy té toll instant bo xamné Sénégal wax bi amatu maanaa ay dajolo ay marche li moy combat bi moy la moy bas bi joge fi c'est notre salaire notre seul combat ñun ñëpp lañu si war a si lolu jeunes c'est des jeunes volontaires qu'on a déjà formé comme légui yalla dafa def dajé yi dañ koy téré ñun légui dañu arrêter tout nos rassemblements dañu ko arrêté léegi si lolu ñun bo xolé sax campagne médiatique bi ñu gën def war naa am une plateforme de mouvement si fofu ñu jotalee les informations boo xoolee ça sa point ne pas informé au mouvement uniquement le bureau des jeunes la la convoqué pour xoolee ay ndaw sommes fi parce que affaire bi ñoom la ñoom ñoo dem Il le président Macky Sall il faut que jeunes yi a def parce que jeunesse bi koy si nous ñun décider population bi si walu sensibilisation bi donc si vous tay mo taxone tay ma pour stopper li nga xam que moy bas bi si lolu mo tax tay de sama journaliste pour aussi attirer attention la population ci Essoise pour dire que danger ba ngi fi buñu démé ba Dakar mu nekkoon Habib ñaa ànd ak mouvement sukkali Sénégal ci euh, point de presse boo xam ni amaloon nañu ko sekkoon ko ak mbokk taskati xibaar yi noonu la ñuy def daal di jubali ba commune bu Ngoundiane mairie ba de am def nañu ndimbal lu am solo jëmee ci poste de santé yi nga xam ni ñoo fa nekk toll ci juróom yëkkati bu garab bi maanaam médicament yoo xam ni moom la ñuy fajoo ca dispensaire yooyee ak xaalis boo xam ni dañ leen koy dimbale nga facture nga xam ni moom la am ci wàllub ndox ma courant ba ak yeneen i dépense ndax seetlu nañu ni ba tey bëri na ci askan wi ñoo xam ni daan nañu dem ci béréb yooyu di faju waaye ba jàngoro ji gane si réew mi ba léegi ñu bëri dañoo daw dummoo yu daal di fooyu ñu dem foofee ca Ngoundiane. des sages-femmes de xaay et de Thiangaye beneen bi ñuy mottali moom mooy euh, personnel bi nga xam ne maire jël na ko bu ñu fàtte ne ñoo jëlal au niveau de chaque poste trois personnels boo xam ne sur sur le plan communautaire. CDS ñoo leen doon fay mais légui maire mo leen jël en compte di ko fay ci fond propre ñu né nak toujours comme dañu am personnel ba fa dess ci yoy jël na chauffeur jël na ambulancier jël na ben ASC d'habitude poste yu bari suñu am ñaar ASC la am ñu né ben ASC bi dess ci poste yi dañu ko maire jëlal pour que loolu mëna mat ci dans le cadre de la gouvernance de la fonction publique locale li nga xam ne nguñaan tàmbali na mu matal ko moo tax doole ñu daal di ko sur la table pour que loolu maire bi mën koo def. dañ doon daje ak ñi nga xamante ne ñoo yore lépp lu dem ci wàllu wér-gi-yaram ci commune bi muy euh, infirmier chef de poste yi muy ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore comité de développement sanitaire yi ak euh, ñi nga xamante ne ñoo yore mutuelle de santé wu Ngoundiane. Euh, ndaje mi nag liñ ciy def mooy dañuy njëkk a waxtaan ci lan mooy suñu ay jafe-jafe ci domaine bi ba pare xool yan saafara lañ ci mën a indi mais aussi ñu xool en terme de perspective lan la ñu war a euh, def. Euh, tey nag de manière précise li ñu doon def mooy jébbal leen ay médicament waaye aussi ñu jébbalaale aussi ay subventions yoo xamante ne def nañ ko ci domaine de santé tey médicaments yi ngeen gis suñu ginnaaw ñu ngi toll ci valeur du 5 millions. Euh, ñoom lañ doon jëbal ICP je rappelle que ne ñun fii Ngoundiane cinq postes de santé la ñu la la la ñu am mais lu dul euh, médicaments yi ñu joxe euh, boo xaymaa li ñu joxe yépp ci volet santé bi ren toll na ci fukki million ak juróom bu tegal genn wàll bi mbas mi ci réew mi situation bu bees njiitum réew mi dafa woote lu ñuy wax solidarité nationale wax Euh, commune euh, collectivité territoriale yëpp nañu participer boobu Ngunjaan participer na à hauteur de deux millions maanaam génne na ñaari millions joxe ko ci ci ci ci euh, woote njiitu réew mi waaye noonu la ñu génne waatee aussi ñaari millions teg ko fii ci Ngunjaan daal di woo doomi Ngunjaan yëpp pour ñu jàpp ci nga euh, li nga xamante ne mooy comité local bi ñu tegoon fii ci Ngoundiane waa Ngoundiane dajale nañ lu ëpp trois millions ñëw joxe ko fii jox ko euh, comité local bi donc ñu profito sant leen waaye euh, en plus de li ma doon lim léegi rek poste de santé yi 5 lañu bu si nekk jox nañ la un million boo xamante ne dañ lay jàppale pour nga mën a fay sa facture ndox ak sa facture courant ñu ko doon xaar ndax euh, dina amam deet ndogal la wàcc na démb ñu ànd ak sabab ba ndax ki nga xam ni mooy euh, liñ daan wàcc màggal ak Touba wax nañu ni fas nañ nañ ko jàpp ren dinañ ko amal nañ ko dan amalee ci at yi weesu euh, comité départemental de développement bi maanaam CDD ba te ki nga xam ni moo ko jiite di Serigne Ousmane Mbacke Gayne Fatma di coordinateur ba am na ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko ci janoo nga xam ni janoo nañ ko ak taskatu xibaar yi ngir mu wax leen ndigal li nga xam ni moo ko ci xalifa bi ci ñi nga xam ni ñoo war a jóge ci yeneen i réew euh, ñëw foofee ca Touba ngir euh, joxe loolu nga xam ni mooy seenu màggal mesure yi nga xam ni war nañu sàmmonte ak moom waaye it ñi nga xam ni ñoo dëkk ca dëkk ba tey teeru seeni gan ñoom it lépp loo xam ne docteur wax na leen ko ci mbas moomee ngir ñu mën a fagaru ba mën a fegu ci jàngoro ji ñu teewlu ko. niñ ko baaxoo def rek waajal màggal gi ci anam yiñ ko daan waajalee li ci yokk rek mooy. Euh,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 xibaari biti réew yi du leen dul dem ba foofee ci euh, Gabon ndax gis nañu ni euh, tey la ñu doon amal seen feetub indépendance 1960 ba léegi seetu nañu nit ñi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon euh, ci juróom-benn fukk ci ay at boobu ba tey ànd ak régime Ali Bongo ñooñu ba tey ñoom ñoo fa nekk waaye am na koo xam ni Albert Ondo Ocha moom mi nga xam ni nekkoon na fa njiital njàngale Mokayoma 2006 ba 2009 nekk candidat ci présidentielle ya atum tey mu nekk professeur économique euh, foofee ca lycée bu fa gën a mag euh, ca université bi fa gën a mag mu nekk foofee ca Libreville ñu déppee ko Omar Bongo euh, moom it yëkkati na ay kàddu daal di koy jibal wax ni Ali Bongo ak ñi nga xam ni mooy Jean Ping ak ña nekk ca réew ma daanaka mburu foofu ko farni la ñoom ñoo yem ndax boobu ba tey gis nañu réewum Gabon fa mu nekkoon dafa taggatéem bi puusul paasul loolu yi daal bokk na ci li nga xam ni moo gënoon a fës ci xibaar yi biti réew yem ak li nga xam ni mbokk yi fi la ñuy euh, jeexalee li nga xam ni moo di xibaar yi di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ci jàppoon ba xibaar yi mën a ñoŋ di jaajëfal mbay papa ji ak soxna Xarijatu Njaay ñi nekkoon ci wàllu caméraman yi ak euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàllu technique bi di leen jox daje incha allah rabi suba ci yeneen yi xibaar fii ci Thiès TV jaa ngeen jëf.